Euh, tey ñu woote fii nga xamante ne mooy euh, Touba Tali bu bees Daaru Mannaan euh, ànd kook sa sunu coordonnateur bi nga xam ne mooy Serigne Mbacke Thiam di def li nga xamante ne mooy sunu déclaration pour jàppale li nga xamante ne mooy coalition Idy 2019. loolu moo tax ñu woo mbooloo mi yëpp nga xamante ne dañoo ànd di ci mouvement bi nga xamante ne mooy àndandoo defaraat sunu réew. pour liggéey réew mi nga xamante ne tey ku ne xam ne réew mi toll na ci ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu mu toll du dara ku ko def ku dul ki nga xamante ne mooy ancien président de la république ndax duñ ko wax président de la république muy le président Macky Sall bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci gouvernement bi diirub sept ans waxoon ñu cinq ans euh, sept ans yi nga xamante ne dañ koo dund lu métti métti métti métti euh, ñun waa mouvement àndandoo defaraat suñu réew bi nga xamante ne dañoo jël suñu responsabilité xool xam ne réew mi bi ko président Macky Sall di yor dafa am ci loxo yoo xamante ne moom lañ ko ko joxe woon tey jii ñu xam ne Sénégal dafa dugg ci guute goo xamante ne le président Macky moom moo ko ci dugal muy Macky Sall yàq réew mi ba nga xamante ne kenn xamatul réew mi nu muy nuyu lu comme ni ko président Abdoulaye Wade waxee loolu moo taxal tey ñun ñu fas yéene jël suñu mbooloo jël lépp jébbal ko ki nga xamante ne tey jàpp nañ ne Sénégal. ñi nga xamante ne noonu la ko Macky Sall yàqee moom la président sa Seck moom dong moo ñu mën a gindi ci lëndam gi nga xamante ne dugg nañ ci. loolu moo tax ñu ànd mouvement àndandoo defaraat suñu réew bëgg a jël le président Idrissa Seck le 24 février incha allah fii ci Touba nga xamante ne ñun dañoo ñëw rek di di mottali ndax ku ne xam ne ne Touba gi moom ñëpp pare nañ pour ànd ak le président Idrissa Seck fal ko dès le premier tour. loolu moo tax ñun mouvement àndandoo defaraat suñu réew ñu jël suñu mbooloo fas yéene ànd ak le président Idrissa sec pour le 24 février incha allahu rabbi ñu jox ko réew mi. réew mi nag jafe-jafe yi bari na réew mi askan bi sonn nañ le président Macky Sall li nga xamante ne moom la waxoon ak askan bi defu ci dara benn bi mooy mandaam bi cinq la waxoon mu def sept ans loolu dictature la beneen bi mu wax ne su ngeen ma falee. du ma jël sama njaboot dugal ci biir gouvernement bi ñëpp gis nañ ne tey muy rakkam Aliou Sall muy gorom Marème fay Sall muy soxnaam muy ay doomam ñoom dong ñooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi tey ñoom ñoo tekki nit ñi nga xamante ne dañ koo faloon te sonnoon lool amoon yaakaar ci moom mu wan leen ginnaaw kon lim ñu waxoon promesse ñu ko defu ci dara kon nag tey jii rawatina population bi nga xamante ne moom lañ nekk muy Touba ma bëgg mu leer naññ ñu xam ne le président Macky Sall amul dara lu mu def Touba. Touba lépp lu fi am waa Touba ñoo ko defal seen bopp kon président Macky Sall amul dara lu mu fi def ñuy wax ne fii muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé muy Mame Khary Mbacké ñu leen wax ne askanu xaalis bi nga xamante ne moom ngeen jël muy xaalisu population bi ngeen jël. Mhm. di ko géré nit ñi. jël ko en plus di ko xeexee jàpp ne yéen yéen a mën jàpp ne yéen yéen la Macky Sall teg fii ñuy wax ne xaalis boobu nga xamante da ngeen koo sàcc ci askanu nit ñi. yéen lañ bëgg a xam ne war ngeen am lu ngeen di jomb war ngeen am lu ngeen di rus ndax ay taalibe Serigne Touba ñoo fi nekk. ñu jàppoon ne yéen ay sëtu Serigne Touba ngeen ñu jàppoon ne yéen ay deretu Serigne Touba ngeen ñu jàppoon ay ngor ngeen te loolu nekkul ci yéen dañoo bëgg nag ngeen xam ne réew mii dëkk bii di Touba réew mii di Sénégal jàmm rek lañ fi bëgg la président Macky Sall bu bëggee jàmm. incha allahu rabbi na teg élection yi ci lu leer. ndax le président Idrissa Seck. dina ko jël ci loxoom jël bu leer nañ kon nag ñu ngi leen di wax ne mhm. réew mi dañ fee bëgg jàmm mhm. dëkk bi di Touba mhm. li ñuy nar li président Macky Sall ak Aly Ngouille di nar lépp xam nañ ko yëg nañ ko mooy yàq élection yi fii ci Touba te ñun duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg li ñu def nag mooy xam nañ ne ñàkk nañ fii ci Touba le président sa Seck mooy ki nga xamante ne Touba gi ñëpp moom lañ jox bopp moom nag jël na candidat yi nga xamante ne daf leen a recalé ci li nga xamante ne mooy parrainage bi candidat yooyu yëpp booloo nañ booloo gi ñu booloo rek daan na le président Macky Sall yi xam nañ nu mu demee presse internationale bind nañ ci ñëpp wax nañ ci li ñu wax nag leer na nañ mooy incha allah le 24 février dañoo bëgg mu def génnee li nga xamante ne mooy fichier bi mhm. doublon yi gis nañ ko carte d'identité yi ñu false gis nañ ko te loolu lépp taxul président Macky Sall dellu ginnaaw ci li ñu ko waxoon nekkoon na jël kenn koo xamante ne moo yor yi mu bañ ñun nag am nañ doole am nañ fit ay ndaw lañu te Sénégal moo ñu ñor le président Idrissa Seck joxuñu dërëm joxuñu xaalis dañoo xam ne réew mii dafa am fu ko Macky Sall fekkoon yàq réew mi muy le président Abdoulaye bi mu ko koy jox réew mi réew la boo xamante ne ku ci nekk yaa ngi ci doon yëg sa bopp kon nag nañu wax ne bis ni ki tey nañu xam ne le président Macky Sall Touba du voté ak moom te du mës a voté pour moom parce que amul lu mu fi def. Mhm. Ila Touba bi muy naxee nit ñi nañu xam ne ay ay tappale kese la Ila Touba bi projet wu Abdoulaye Wade la woon li tax mu def ko xam na ne Touba gi économie bi fi nekk nga xamante ne moo nekk fii ci Touba lépp loo xamante ne xaalis la luy jóge fii nañ koy jaare ci autoroute bi di ko yóbbu muy fanaani Dakar mhm. kon ñoom defuñu autoroute bi pour lenn mhm. hôpital bi nga xamante ne moom la ñu digoon. defaluñ ko dëkk bii fii ñu nekk ci Daaru Marnaan ku xool xam ne yoon bii nga xamante ne mooy 30 bi day taa defuñu fi dara Macky Sall bi mu ñëwee Daaru Salaam sëñ jiili bu sëñ Modou Mamoun sept ans la ko wax da nga ne da nga toog sept ans tegoo sa tànk ci dëkk bi. nga dem ba sa mandat jeex nga dellu suwaat ci dëkk bi kon Macky Sall. Touba ñoru ko. Serigne Touba ñoru ko. Idrissa Seck nag Touba moo ko ñor ak Serigne Touba ñun lépp lu ñu mën ci def loo xamante ne da koy ci la la ñuy nekk may profité ci occasion bi di wax ne am na ku ñu dégg muy sëñ Fallou Bousso sëñ bi dañoo bëgg nga xam ne àdduna bi lu doy amu fi lu ñu doyloo moo fi am te ay gor sëriñ Touba gore moo taxoon mu dem ci géej gi gore moo taxoon mu liggéey gore moo taxoon mu fekk Touba di àll mu ñëw dëkk fi xaalis bi leen Macky Sall jox dafay jeex te yéen ay sëtu sëñ Touba ngeen sëriñ Touba moo ëpp doole Macky Sall ancien ministre moo am ancien député moo am ancien président moo am mais ancien sëriñ amul fenn sëriñ si nañu gore sëriñ si nañu xam ne taalibe dañ leen yaakaar te sëriñ Touba tax te taalibe yi leen yaakaar amuñu dara lu dul ñu di leen digal ñuy def te am na lu leen sëriñ Touba waxoon taalibe bu ñu demee ba nga xamante ne taalibe sëriñ amatul dignité day perte valeur te ñun mouvement àndandoo defar suñu réew bokk na ci lu ñuy xeex dëkk bii dëkk sëriñ Touba la dëkk bii dëkk ki nga xamante ne mooy xaadim rasul ki demoon ci géej gi la benn sëriñ du ko fal salfaane ci ngir xaalis li ngeen di wax du waxu dara li ngeen di wax du jëfinu dara ñun yàlla la ñu yaakaar ak yonent bi ak sëriñ Touba waaye fii population bi moom jox nañ seen bopp Idrissa Seck te xam ne Idrissa Seck la ñuy votel mhm. kon ñu ngi leen di sant mhm. di leen gërëm di gërëm ñëpp di xam ne bis ni ko tey le mouvement àndandoo defaraat suñu réew mhm. dafay ànd ak coalition Idy 2019 pour jàppale ko